kon mbokki jullit yi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonul aw raaya woo xam ne rek da nga koy yëkkati ñu ne kële mooy ko bëgg yonent bi wala aw bind woo xam ne da koy bind moo xam aw xasida la wala ab discours boo jàng la wala wax woo xam ne da ngaa jekki ba mu neex la rek nga ñëw dajale nit ña wax jànn wax ñi ne loolu mooy wane ne kii bëgg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg yonent bi ëpp na loolu bëgg yonent bi ci jullit bi ëpp na mu di ko jagleel benn bés cim at ak xam ci jullit yi ëpp na lool jullit bi ak jokkaloom ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci wàllu topp ko ak jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem <coughs> ëpp na lool moo tax saa bu xëyee suy yëngu bis bu nekk ma ngay teewlu la muy yëngu na ca yonent bi yëngoo woon bu dee julli maa ngi xool noom jàngale woon julli ndax mu man koo jëfe bu dee aj maa ngi xool la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon jële leen ci man ni ngeen di aje buy woor wala muy joxe asaka wala xeetu jaamu yàlla wu muy def wu ne la muy xool mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam nu mu ko jàngalee woon mu jëfe ko kon kooku yonent bi alayhi salaatu wasalaam jugul ci xelam benn yoon su ci naroon a jóg sax lislaam tëree nañ ko noo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam aajewut ñiy wut bis boobu dañ naan dañ koy fàttaliku bis bu ne lu néew néew danañ nodd juróomi yoon te saa buñ noddee bu nekk ashadu anna muhammad rasulullah mi ngi ci biir nodd gi nga di ko dégg ñi di ko wax ci jàkk yi ñépp di ko dégg soo déggutug nodd xanaa ginnaaw ab jullit nga da nga julli gën ngaa néew da nga julli juróomi yoon te boo jullee danga nga taaya te boo taayee da nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bis bu nekk ci biir taayee da ko tudd juróomi yoon koo xam ne noonu la takkoog yow ngay dégg ñi di ko nodde booy taayee di jaar ca tur wa booy def lu nekk di xool ba xam lii lu mu ci jàngale woon ndax nga mën a jëfe loolu mën a bàyyi la ca des ma ne kooku takkoo woog moom ba di ko fàtte ba di ko wutal bis boo xam ne da nga naan ci laa koy fàttaliku kon su fekkoon ne yi nit ñi xewal tudde ko fàttaliku juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne xeetu jiima laya leen wu nekk ñu ngi ko ko ma wutal te luñ la mën a wax lu nekk moo di yonent baa ki saxaabaam loolu xamuñu ko woon te li wér mooy saxaaba ya xamoon nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam weer woom judd xam nañ kañ la ko yàlla yónni xam nañ kañ la gàddaay xam nañ gañaay yu mag yi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala defal na ko ko ci histoire xam itam kañ la faatu bis yooyu yépp saxaaba yi xam nañ ko ànd ak nañ bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn bëggewu ko noonu ba noppi yooyu yépp seen xel nekkut sax ci di ko def kon suñ demee ba jëmmi jamono ay nit bëgg sos loo xam ne benn buur bu dëkk ci Égypte moo toogoon ba jëmmi jamono mu gis nasaraan yiñ dëkkal ñu wut bis boo xam ne dañ koy màggale juddu Isa buur ba di boroom alal mu ne gàcce ci nun fekk loola ci juróomeelu seekal la ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam saxaaba yaag taabiyoon yaag ñépp jeex nañ tàkk ba mu mat juróomi téeméeri at buur boobu doon boroom alal mu ne ah man de gàcce la ci man nasaraan yi di màggal juddu isa te màggaluma juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbali di togg ay reer bu bis boobu ñëwee woo ay nit ñu daje këram di fa lekk yëf ya tàmbalee foofu ba tasaaroo ci monde bi ba jullit yi dem ba jàpp ne lii farata ju mënatul ñàkk ci biir diine ji la ma ne mbir mi su demee ba àgg foofu ba yi ciy xew di ci xew ba nga xam ne dalay wóor ne ñu baax ña ko doon woote sax suñ demoon ba xam ne lu mel nii moo ciy mujj danañ ko tere su fekkee mbir mi dem na ba demee noon jaadu na ci ku am benn responsabilité ci jullit yi ci wàllu jàngale nga yëgal jullit yi ak fu ñu mën a nekk ne loolu de moo xam ñu ngi koy def wala defu wuñ ko waaye bokkul ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag ku cay wax ci xam-xam nga ko war a teg ku la mën a wax ne yonent bi alayhi salaatu salaam defaloon nañ ko ko ci dundam wala bu mu fi jógee ñam yaroon muy saxaaba yi defal nañ ko ko wala saxaaba yooyu ñen yaroon ñoom muy taabiroon yi defal nañ ko ko ku la ne lenn am na ci yooyu nee ko qul haatu burhanakum in kuntum saadiqin su fekkee ne wax ngeen dëgg andil leen ma lay wuy wane ne kenn ci yonent bi wala saxaaba yi wala taabiroon yi def nañ ko su fekkee lay woowu dikkul nag lu dul rek dañuy wax ne sun mag ñu baax ñi ñoo ko rafetlu woon di ko jëfe kooku dañuy wax ne yàlla leen yàlla yërëm yàlla leen yàlla jéggal ñoom sun mag ñu baax ñi waaye danañ yëg ne même liñ sos gannaaw ñu baax ñi sax buñ jël si woon ba teg ci bët danañ gis ne lii moom du noona kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalewu ko wonewut woon loolu du aw doxiinam saxaaba yi xamuñu ko buñ jël si woon tey fekk nit ña dajaloo di ko def dañuy wax ne lii lu mu doon lépp loo xam ne noonu la mel nag nañ xam ne bokkut ci diine kon lu mel noonu boo gisee ñu warees cee wax mooy aj gi ñu ko aj ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni dafa bokk ci diine ku jógoon wutal sa baay bis wala sa maam yoonu kenn nekku ci xëy na sa maam wala sa baay benn bis la yeyoo ci yow ci sa dund waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu kenn def ci boppi jullit yi ne benn bis la yeyoo ci jullit yi lim yeyoo ci ñoom ëpp ko dee sa war a ànd ak moom ci sunnaam dee sa war a ànd ak moom ci jaamu yàlla yi dee sa war a ànd ak moom ci ko jàng ci biir daara yi bis bu nekk dañoo war a jàng siiraam dañ ko war a xam war a xam mbaaxam nga war a xam jikkoom ya loolu dañ ko war a xam dafa war a tasaaroo waruñu ko jagleel rek benn bis boo xam ne bu jotee ci lañ koy defee rawatina bis boo xam ne mënta génn muk mukk kaadaru biddaa ci biir diine te yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ne ku sos ci sama diine jii loo xam ne bokk ci kooku dañ la koy delloo maanaam du amal njariñ kon su fekkee coono yu metti yi ci nit ñi daj yëpp yëpp yëpp dañuy sikki sàkk ndax dana amub yoolam du ko am te la wóor mooy du ko am kon kooku wax dëgg yàlla jullit yi war nañoo seetaat seen bopp ci mbir yu bare bari yoo xam ne ñu ngi koy jëfee des nekk tey te yonente bi alayhi salaatu wasalaam da doon tere ak ëppal ci diine ëppal ci diine mooy dem ba boole ci lu ci bokkut muy wax ne wattu leen teengal wattandiku leen teengal ña leen jiitu kat xeet ya jiitu woon bokk na ci la leen alak mooy teengal ci seen diine daan wax ne bu leen ma jay ni nasaraan yi jayee isa ibnu mariam bu leen ma jayee noonu waaye man doy na ma rek ngeen ne kii jaamu yàlla la yonentam la te nag ëppal ci diine mooy tax nit ki dama dem ba wax loo xam ne lu mu xamut la wala mu jéggi dayo yonente bi alayhi salaatu wasalaam da daan ci mujjug ak dundam bis bi nga xam ne ci la génn àdduna sax dafa doon wax ne wala boog ñetti fan yi nga xam ne ci la génn àdduna ñi ko war ñëpp ci saxaaba yi doon nañ dégg muy wax ne yàlla day rëbb na nasaraan yeeg yahuud yi ndax dañoo jël xabruy seen yonent ya def ko mu nekk ay jaamukaay maanaam ay jàkka mu teg ci ne sama xabru bu leen ko def mu nekk ak iid maanaam waxtu woo xam ne saa bu jotee rek ngeen dajaloo fa mu ne su ngeen bëggee julli ci man fu ngeen mën a toog julli leen ci man kon mën ngeen a julli ci yonent bi sallallahu alayhi fu ngeen mën a toog mu ne fa inna salaatakum tablughuni aynama kuntum fu ngeen mën a nekk su ngeen jullee ci man seenu julli ak agsi ci man moo tax sayxul islaam ibnu taymiya di wax ne nit ñi de lii ñu sos te fekk dañ ko roye nasaraan yi ci juddub isaa bi nga xam ne nasaraan yi dañ koy màggal mu ne moo xam ñooñu dañ koo def ngir bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala màggal ko ba tax ñu jël juddu yonent bi def ko ak iid mel ne mooy iidu ñetteel gi ci lislaam bu ñu ne koor yi tabaski daal di cay teg ne gàmmo mu ne ànd ak ne sax nit ñi dañoo juuyoo ci date bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci la juddu ñii nee nañ fukki fan ci gàmmo bi la ñii nee nañ fukki fan ak ñaar ñii ne fukk ak ñett am sax ñu ko yóbbu ba ca weeru safar ne génn na gàmmo waaye dafa del si gannaaw ba ci weeru weeru digg bi kon juuyoo am na ci même juddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne loolu ibnu taymiya mooy wax mu ne asalafu saalix day defuñu ko woon ànd ak ne su fekkee ne bëgg yonent bi moo tax ñi di ko def kon la war a tax ñi di ko def loolaa nga fa woon parce ñoom it bëggoon nañ yonent bi te it amul woon lenn lu leen ko tere su fekkoon ne gëm nañ ne ci diine la bokki dara terewu leen ko kon qiyaamul muqtadi ak adamul maane gépp jaamu yàlla guñ dajee te defeesu ko nga xam ne loola du jaamu yàlla mu ne su fekkoon ne yiwu kese la su fekkoon ne yiwu kese la wala sax la ci ëpp doon ak aw yiw mu am yu sew sewaan yu ne ca biir neen su fekkoon ne noonu la mel nee na kon asalafu saalix ñoom ñoonu gën a yey ci loolu ndax ñooñu ñoonu gënoon a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee màggal ko ñoo ko dàqoon a màggal mu ne te aw yiw sax ñoonu ca gënoon a xër mu ne waaye yonent bi ñoom xamoon nañ ne sopp ko ak màggal ko mooy topp ndigalam def lam digle bàyyi lam tere dundal sunnaam ci lu nëbbu ak ci lu feeñ tasaare ko ci sa kem kàttan ci sa làmmiñ ak ci sa xol ak ci sa loxo mu teg ca ibnu taymiya mooy mu ne li ëpp ci ñi nga xam ne dañoo xër lool ci dundal biddaa bi nee na ndax biddaa boo xam ne xër na ba léegi buñ gisoon ab jullit dañ am na ñu lay laaj sax ndax am jullit boo xam ne du ko def kon kooku àgg na foo xam ne jéggi na dayo mu ne da gis ñi ci xër lool sax boo ñëwee natt leen ci yi nga xam ne mooy sunna dëgg-dëgg dangay ngay fekk ñu tayeel ñu tayeel ci sawar lool nag ci li nga xam ne bi daal a tayeel lool ci yi nga xam ne ay sunna yu taxaw la mu ne ñooñu day li leen dal mooy ku mel ne ku gàddu kaamilub alxuraan yore ko rek waaye du ko ubbi mukk jàng ci du ko ubbi mukk jàng ci ndax bëggeel gaa ngi fi bëgg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax muy mu di ci sonn di pas di dugg di yéeg di dem di wàcc di fanaanee xoole sax loolu lépp mbëggeelu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du ko weddi waaye du noonu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko loolu moom dafa war ci ñun bëgg gi nag du bëgguk at mu nekk benn yoon nga ko ciy bëgg déedéet jël at mi yëpp onze mois nga nekk ci la neex benn bi nga topp muhammad ay waaja muhammad ay ngand loolu yow vraiment yow yow jullit bu suufe nga mais jullit bu mat dëgg bëgg yonente bi dafa war a mooñu ci xolam tout le temps ané bi yëpp ngay julli ci yonante bi di def ay ndigalam di bàyyi ay terem lolu moy bëgg yonante bi sallallahu alayhi wasallam waye waaye bëgg yonante bi rek bu ko xam ci ben ci ben semaine ci ben fan non non lolu du bëgg yonante sahaba yi tout le temps dañu bëggoon yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom bi neena na bëgg muhammad day tekki bëgg ma man yàlla kon ku bëgg muhammad rek bëgg nga yàlla borom bi ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah su fekkee bëgg ngeen yàlla topp leen ma Muhammad yàlla bëgg leen kon soo bëggee yàlla bëgg la jarul nga naan yàlla bëgg ma déedéet yomb na yàlla wan na la ki ngay bëgg pour yàlla bëgg la kan ngay bëgg pour yàlla bëgg la yaa xii Muhammad la tudd kooku mooy rasulullah bëgg gi nag du nekk ci wax rek day ànd ak jëf li mu doon digle nga jéem ci la nga mën li mu doon tere nga jéem ko bàyyi ndax wama maa rasul fa yàlla neena lu len muhammad jox jël len mako garanti wama maa rasul fa wama wa maa anhu fantahu lu len muhammad tere balen mako wax kon tere muhammad comme tere yàlla digle muhammad comme digle yàlla qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhbibkum allah topp leen ma yàlla bëgg leen kon yàlla bëgg la nekkul ci génne àddiya joxe waaw bëgg yonent bi nekkul buñ ko tuddee nga génne xaalis joxe déedéet bëgg yonent bi nekkul buñ ko tuddee nga fottasu déedéet bëgg yonent bi nekkul buñ ko tuddee nga wax say kàddu de mais bëgg yonent bi mooy dañuy xool kii ne bëgg na yonent bi ndax mi ngi teg tànkam fi ko yonent bi tegoon arab nee na innal muhibba liman yuhibbu mutii'u gis nga nit lu mu bëgg da koy topp xale yu góor yi sax nga xamante ne gaan ay man lañ ñi ñu bëgg mooy peewumaan yi moo tax ñu koy def kon soo bëggee nit ni mu mel da koy mel waaye mënoo bëgg nit ba ba sa jabar topp fi naan la nijaay man je yow rek laa bëgg te boo ko tegee loxo mu ne la bàyyi ma bu yàggee nga ne ko temoo ma dara da ngay wax rek kon je t'aime je kay li muy tekki mooy foo jaar ma jaar fa loolu lay tekki da ngaa bëgg Muhammad fexeel nga nuroog moom ci julli fexeel nga nuroog moom ci col fexeel nga nuroog moom ci jikko fexel nga nuroog moom ci melokaan fexel nga nuroog moom ci moy bàkkaar fexel nga nuroog moom ci jàng alquran ci naafila gudd ci topp ko loolu mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci suñu àq ak yonent bi mooy nañu xam ni kenn du bëgg yonent bi lu dul yonent bee la war a gënal sa bopp gënal la sa ndey gënal la sa doom yonent bi nee na laa yuminu ahadukum xatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa waalidihi wannaasi ajmain kenn ci yéen du gëm lu dul man maa koy gënal doomam maa koy gënal baayam maa koy gënal nit ñépp ñépp foofu nag la problème bi nekk gis nga saxaaba yi yonent bi da leen gënaloon lépp saxaaba yi gis nga ci koo xamante ne yaayam nar naa dee ngir na bàyyi muhammad mu ne ko yaay boo amoon téeméeri bàkkan benn bu nekk di dee du ma bàyyi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon saxaaba yi ni ñu meloon ndax mën nañ leen a dab mënuñ leen a dab saxaabatul kiram mbokk yi bëgg yonant bi jaral na leen ñu ñàkk seen baay jaral na leen ñu wuuteeg seen baay ñun la tey dañ lay nax naa la non non waajur kay kilifa la naam kilifa la mais bu waajur wuuteeg Muhammad nekkatul kilifa ndax ku wuuteeg ku kilifa gi ku wuuteeg moom mënatoo nekk kilifa kon li yonent bi digle da nga ko war a topp sa waajur bu nekkee ci lu dul yoon. amal nooy waxtaaneek moom jéem koo woo ci dëgg raisonné ko te nga dal bu fekkee sa jur nag daf laa bëgg a mere ci li yonent bi jàngale bu ko tontu dara waaye li yonent bi jàngale ngay def waaw bu ko tontu nag dara wa kàddu bu ñaaw ndax mag la sa papa la bu la nee li ma gëm ngay gëm ki ma topp ngay topp nee ko waaw père wax nga dëgg waaye yow toppal ki nga topp ndax ki mu la fiy tegal xam nga ni suq la ci suq Muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam kon bu la nee yow de lu tax gëmoo diw nee koy man damaa gëm ku gën diw ba pare waaw kooku moom dëgg dëgg dëgg dëgg xol bu Muhammad nekk keneen xajatu ci nag dëgg-dëgg ku ñor dëgg-dëgg dugal Muhammad ci sa xol keneen mënatu cee xaj kooku da nga koy sopp waaye waratul dox sa digganteeg Muhammad bokk na ci dëggal yonante bi ci lépp lu mu wax da koy dëggal ndax yonent bi lu mu ñu wax dañu koy gis ci tere yi ci digle yi moo tax borom bi ne ko inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadira لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا برام بنينا يا محمد ما لا يوني نغا سيدة خير بي دي لين بيغل دي لين خب نغير نغير نغم يالا باي غم محمد نك موكي نغير غم يوننتي بي صلى الله عليه وسلم بيب برام خم خم بو بغ يوننتي بي نك بغ لدى فجار بيب برام خم خم اك نتو يالا بو بغ يوننتي بي mu nga baat boobu dañ koy faral di waxee rek ma di ko waxee noonu waaye xam naa ne loolu moom wax la rek mais ñëpp nitu yàlla lañ dafa am baat yoo xam ne gars yi dañ koo kar dencal ko seen bopp xañ ko ñeneen ñi sama maam nitu yàlla la yow sa maam nag nit simple la waaw mais nitu yàlla moom ñëpp nitu yàlla lañ waaw baat boobu nag ku nangu ñu ñu féeteel ko seen bopp bàyyi la yaa xam mais nit ñëpp nitu yàlla lañ su fekkee nitu yàlla liñ ci jublu mooy ku ragal yàlla ku ragal yàlla ci nga bokk bu fekkee nitu yàlla liñ ci jublu mooy wàllu yàlla ñun ñëpp wàllu yàlla allahu waliyul ladina amanu yuxriju min azulumat ila nuur kon am baat yoo xamante dañ ñu koo jox ñun ñëpp ñun ñoo ko mu des nag fu ñuy inna akramakum inda allahi atqaakum bañ xaalis taxul baax de teewut a baax bañ xaalis taxul baax teewul baax bëgg xaalis taxul baax teewul baax kon problème bi yëpp mooy mbaax gi na dëggu soo ragalee yàlla yàlla gis nga yàlla xam sax mbaax moo gën nit ñi xam ko su ko nit ñi xamee du la yokk bal dalay lay sax fu nit ñi taxaw naan diw dafa ragal yàlla bu yàggee nga gis sa bopp mais gis nga yàlla registre bi mu yore ñi ko ragal ñu nga ca yàlla nañ ci bokk ñun. képp kuñ ci génn nag yaa xam mais ku ci yàlla dugal ku la ci génn day sonal boppam waaw day son bu yaboo sa tubéy na gàtt ak nañ la xas ak tubéy bu gàtt ak sa kii yëpp dafa tilim ak te <laughs> mu doon wax waxtaan ak sam benn waay mu a mais oustaz la moo tax gars yi leen xasee tubéy bu gàtt man ah gars yi koy wax dañoo gàtt xel mais sëriñ si ñëpp la seen tubéy gàttoon sëriñ si fi nekk wii ñëpp ñi ñu fi gis xam nañu seen tubéy daa gàtt ñi ñu gis woon seen photo tubéy yi daa gàtt xam nga ne caaye fa la nit su sax tàmbale mag ñëpp caaye lañ doon sol caaye tubéy bi day buubu tubéy bu daan buubu ci caaya caaya taaxuraankat la loolu maa ko wax ku mu neex na ko wër kon ku fi xas tubéy bu gàtt foog ñe da ngay xasaate yaa ngay xas sa kilifa ñoom ñëpp seen tubéy dafa gàttoon mosuñoo sol lu buubu léegi la xew rek ñoom ñëpp dañoo bàyyi woon seen sikkim ci mag ñi amul mag ñi ku ci watoon sikkimam amu ci amu ci kon nag boo toogee di tagg mag ñi naan yaa ànd ak ñoom wat sa sikkim ba mu mel ni nen nga foog yaa ngi koy tagg taggoo ko sa bopp nga xas waaw mais mag ñi ñépp tuba yu gàtt lañ doon sol parce que xamoon nañ ni loolu la yonent bi digle sallallahu alayhi wa sallam loolu kuñ ci xas nañu kontaan loolu du xas ki ko wax daa wax ba pare waaye bu gëstoo xalaat dana xam ne du ñun la xas boppam lay xas ñun nag bu fekkente ni dañuy tey woote wone dañoo bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam te woote di ci waxtaan ak def ay show spectacle ku de di fett suñuy tudd turam di wax ne loolu yépp day wane ne bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam war nañoo wax ne bu fekkee bëgg googu ñuy woote woo dëgg la ci ñun war naa feeñ ci mooy gi ñuy mooy ci njàngaleb yonent bi alayhi salaatu wasalaam yittewoo gi ñu yittewoo xam lan la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi fii ci njàngale ñu dem jàng loolu roy ci tënku ci loolu loolu nekk suñu diine bu fekkente ni bëgg googu ñuy woote woo lu ci ñun la suñu mbiru diine lépp ñu dellu ci moom def ko mu nekk suñu référence moo xam ci pas-pas bu ñuy fas la lu ñuy gëm ñu xam lii ñuy gëm nii ndax moo ko jàngale am déet li ñuy def ci jaami yàlla niñ koy defee ndax lii moom nii la ko jàngalee am déet wàllu jikko jikko yi ñuy jikkoo ak jëflante yeeg yooyu ndax nii la yaree woon ay nitam nii la yaree woon jullit yi wala déet loolu war nañ ci bàyyiwaat suñu xel bu baax bu fekkente ni bëgg nañu woote woo gi ñu woote woo ne bëgg nañ ko yonente bi alayhi salatu wasallam mu nekk dëgg bu fekkente ni itam dëggu nañ ci wote woo gi ñu wote woon ne yonente bi alayhi salatu wasallam dañ koo bëgg dinañ taxaw ci jàppale ab wooteem bi nga xam ne na ci ne na ci woo ci doomu aadama yépp jànkonte ci ay jafe-jafe moom ak ay saxaabaam bàyyil ko fi xeetam ñu taxaw ci loolu ba kenn du ko yàq jël loolu tas ko ci kaw suuf ba nit ñi xam ko jëfe ko waaye di wax ne woot bëgg nañ yonente bi alayhi salatu wasalam te suñu yitte jëmul benn yoon ci jël sunnaam jàngal ko nit ñi tes ko ci ko suuf loolu mbir la moo xamante ne mu safaanoo la bu fekkente ni itam woote woo bi ñuy woote woo ne bëgg nañ ko yonente bi alayhi salatu wasallam dëgg la ci ñun dinañ ko jël def ko muy balance bi nga xam ci la ñuy nattee lépp lu mën a doon moo xam ay wax la wala ay jëf la wala lu mën a doon ci yëfi diine lu ñuy askanel lislaam ki ci balance bi tax ñu xam lañ cay jël ak lañ cay delloo mooy muhammad ibn abdillah alayhi salatu wasalaam lu dëppook moom ñu nangu lu dëppoowul ak moom ñu delloo ak fu mën a jóge bu fekkente ni itam woote boobu dëgg la ne dañu bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam duñu mën a gis mukk kuy jëfe sunnaam di jëfe am njàngaleem boo xam ne bu defee mbir nga ne ko li foo ko jële mu ne diw nettali na diw nettali ko diw nettali ko bay ci yonent bi yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na nangam ak sàngam muy preuve bu leer di xadis bu wér boo xam ne moom boo nee doo ko jëfe mooy bu la neexee kon nga bàyyi lislaam ndax loolu ku ko remettre en cause mooy lislaam ci boppam yépp jaratul nga ci son bul ko jëfeeti ndax lolu ci lañ mëna xamé lim fi bàyyi mo xam alquran la wala sunna la moy ci doxal bu wér netali bu wér loko lacc ci limu def wala lumu wax mu indi la preuve bu mel non nga ni bëgg nga yonante bi alayhi salatu wassalam gis ku nekk ci lolu sa xol di jëx-jëxi ci munu loko support fa so ñaawteef bu ne nga jël ko diko jëmele ci mom diko accuser nan dafa safano dafa worok li fi mam yi xamone man la comme yàlla mom loolu lañuy laaj bu ñu ci ko suuf dafa safaanoog li fi maam yi nekkoon day ŋàññi maam yi day nàngam te sax la ngay wax ay tuuma la rek waaye du dëgg ndax boo déggee ay waxam xam ne ŋàññiwul kenn waaye ku ne am nga sañ-sañu ne lii mooy dëgg di yàlla bëgg ci nit ñi ñu topp ko topp leen ko léegi nag problème bi du ci ki ko wax problème bi mu ngi nekk ci ki loolu déranger kooku la problème bi ci moom la nekk ndax moom moo am problème mais ki wax ne lii mooy dëgg lii mooy alquran bi sunna lii la yàlla toppaloo nit ñi topp leen ko kooku problème nekkul ci ay waxam li mu war a wax rek la wax waaye nag ki mu dérange kooku la problème nekk ci moom léegi nag moom mooy jéem a fexe ut ay gàkk-gàkk ci waxi kooku ba tax violence bi muy jëfandikoo ci ay waxam ak ay jëfam mu mun koo amal lu mu ko layalee waaw wane ni su ma ko waxee lu ñaw c'est parce que daa yaruwul wala daa ŋàññi wala daa saaga fekk ŋàññiwul saagawul li muy wax moo la arrangé wul li muy wax moo la neexul bu te ni itam li ñuy wax ne bëgg nañ ko yonente bi alayhi salatu wasalam dëgg la ci ñun dinañ ko roy ci comme ni ko saxaaba yi radiyallahu anhum doon defee ak moom ndax yow da nga yéemu lool ci koo xamante ni dafay wax ne bëgg na yonente bi alayhi salatu wasalaam ak di ko puukare woo di si sax woote ay lu mbir yu ne pour rek prouver nit ñi ne yow bëgg nga li ci gën a doy waar suñu jamono da ngay woo nit ñi pour prouver la ne bëgg nga yonente bi alayhi salatu wasalaam te kooka boo ko xoolee natt ko ci fan la royam yonente bi alayhi salatu wasalaam toll doo gis ci moom daanaka lenn lu muy roy yonente bi alayhi salatu wasalaam doo ko laaj ci ay jëfam loo xam ne dina la wax lu tax nga mën a xam ne kii yonent bi mu alayhi salatu mooy référence sam te pourtant bu fekkee mbëggeel gi àgg na fenn fi wax dëgg yàlla war nañu yëg ci yow yitte woo roy gi ak topp gi ak jéem a nuroo gi ndax ku bëgg nit nit da nga koy jéem a nuru da nga koy roy waaye roy bi moom bokk ci wax la rek wax la rek ci bëgg gi ak jëm ci loolu mu yéemu itam lool nga gis koo xam ni dafay wane ne bëgg na yonent bi alayhi salatu wasalam ci di bari di julli ci moom te li muy jullee ci yonent bi alayhi salaam yépp anam bi ko yonent bi alayhi salaatu salaam jàngalee bokku ci moo ne yonent bi alayhi salaatu salaam jàngal na jullit ñi naka la ñuy ci moom te kenn mënut a jàngale lu gën lu yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale ndax lu muy jàngale ci yàlla la koy jëlee bi yàlla sante jullit ñi ñu julli ci moom saxaaba yi xamuñu nu ñuy jullee ci moom dañoo ñëw daje ci këram ndax rôle boobu moom la ko yàlla jox boo jëndee ab appareil dafay am menu buñ ciy boole am benn manuel bu ñu ci boolee boo xam ne boo bëggee xam nañ koy jëfandikoo da ngay xool ci manuel bi pour xam naka la appareil bi di fonctionner boo defee lu safaanoog li ñu la wax ci manuel bi dafay lakk wala mu yàqu waaye doo ko jëriñoo yàlla bi mu ñu joxee alquran mu ñëw manuel bi yonent bi alayhi salatu la ko jox pour nga mën a jëfe ndigali yàlla ci alquran da ngay dellu ci yonent bi alayhi salatu salaam loolu saxaaba yi dañ koo xamoon noppal ci seen bopp dañoo ñëw ci këram laaj ko naka la ñuy ci yow من لين قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد مجانغال لين صحابة يم تلولا خمنا كون لين يالا سنتون pour ñu jëfé ko nañu def li yonent bi alayhi sallam jàngale mu jeex waaye tey ki la gën a mën a wane ne moom daa bëgg yonent bi alayhi salatu bay daje di julli ci di nga ko dégg mu wax lu ne ci xeeti julli bam mu des julli bi yonente bi alayhi salatu wasallam jàngale won te xana preuve bi gëna gaaw ci wone sa bëgg mooy nga tënku ci njàngaleem waaye mënoo wëlbatiku jël yeneen jàngale lu ne nga fas ko ca lu ne nga wax ko ca ci ay ngëneel waaye li yonente bi alayhi salatu wasallam jàngale ñu xam ko solo ko ci ay téere yu wér nga bàyyi ko fi doo ko xol doo ko laal xasbuna wa ni'mal wakeel mu bokkaat ci itam ne ba léegi bu fekkonte ni yonente bi alayhi salatu wasallam bëgg gi ñuy wax ne bëgg nañ ko ko dëgg la ci ñun kon du ñu gënale benn njub ci kaw njubu yonente bi alayhi salaatu wasalaam njubam la ñuy topp yoonam la ñuy topp yoon wi mu xàll dañ koy doyloo ndax loola yar na ci ay ba yàlla seedeel leen ne leen gërëm naa leen saxaaba yi yàllaa leen gërëm fekk ñu ngi dox ci kaw suuf kon bu ñu doyloo loolu amaana ñu am gërëmul yàlla subhaanahu wa taala kon loolu rek la yàlla garanti di nga yemu ba léegi itam ci koo xamante ni dafay wax ne bëgg na yonente bi alayhi salatu wasalam te bu dajalee ay nit ne daf leen di waxtaanal ci yonent bi alayhi salatu wasalam ay jaar jaaram daanaka mën nga wax 80 wu hadith yam fay wax ak netale yam fay wax wérul ay khurafat la fay wax yoo xam ni lu mu yeme nit ñi ak lu nit ñi fettasoo rek lay xool waaye ndax li muy wax lu wér la lu authentique la lu ñu mën a vérifier la ci téere hadith yi yitteelu ko ay xar baax ak lépp lu ñu nettali lu kéeme lu yeme rek lu mën a yëngal nit ñi ba xëy na ñu joxe wala ñu gën a gëm moom ay waxam ndax mbir mi dëgg-dëgg du wane weer wi waaye daanaka wane sa bopp la ndax yonent bi ñuy waxtaanee lépp del xool ñi ci ay waxtaanee wax ci wax ci yépp delluwul ci topp leen ko roy leen ko jël leen sunnaam waaye ñëw leen ci man ñëw leen ci samay nangam ak sama nangam la kon daanaka yonent bi alayhi salatu salaam zaaru fiir la rek bu ñuy brandiral nit ñi di faatu nii la doon def ak naa la doon def yëf yi yabaate la nurul te loolu yépp dérapage yooyu lan moo ci yóbbu nit ñi ñu ñàkk leen a recadré teg leen ci yoon xam ne bëgg yonent bi alayhi salatu wasallam du folklore njub la bu ko yàlla jox mu doon yonent indi mission boo ko bëggee jàngal diine ji mu jàngale nga roy ko tënku ci ay ndigalem loolu mooy bëggeel gi mais nekkul yëfi folklore yàlla nañ yàlla subhanahu wa taala sàmm sàmmal ñu suñu diine yàlla nañ yàlla saxal ci diine yi dëgg fegal ñu lépp loo xamante ne dafay yàq suñu lislaam